docteur Alassane Ba ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di nuyu di leen dalal. ngay secrétaire général bu syndicat liggéeykatu administration fiscale euh, ñu dégg leen ay fan a ngi nii euh, lan moo waral coow li. coow li euh, pour ma wax ci tuuti il faut ma delluwaat tuuti ci gannaaw. Mhm, fàttali ñu. waaw soo xoolee ay 2014 doon affecté ay agent impôt léegi bi ñu koy affecté. réaction ministre bi fi nekkoon des finance ak ministre du budget yi fi nekkoon mm-hmm. ñu ne léegi nañu diviser agents yi ci ñaari groupe groupe bi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy mobiliser recettes yi ñoom ñooy indi maanaam ñooy indi xaalis ci gafaka bi mm-hmm. ak groupe bi nga xam ne daanaka participer wuñ mobilisation des recettes maanaam groupe bi nga xam ne nag ñooy favoriser ñoom ñooy participer mobilisation de formation recettes yi mm-hmm. mooy inspecteurs yi ak contrôleurs yi ñu ne léegi si fond système de répartition fonds commun yi nañ leen ñoom trois cent la ñetti téeméer lañu mhm. nañ leen jox soixante trois pour cent ñeneen ñi nag ay mille quatre cent et quelque lañu participer wuñ ci formation recette yi nañ leen jox sos trente sept pour cent yi mhm. loolu indi fa musiba bu rëy ndax ancien système bi ñeneen ñi dañ ci laboon ci système boobu lañ laboon mhm. mais ñu jékki-jékki seen revenu ñu diviser ko par par presque trois quatre même léegi li may ñëwaat ci ñi nga xam ne nee nañ wuñ participé wuñ ci formation recette yi tey tey tey soo amoon dix milliards nga ñëw impôt nga ne da ngay fay impôt mhm. système informatique bi su doxul dañ lay wax ne demal ba suba nga ñëwaat ñu ne donc ingénieur informaticien yi participer wuñu ci formation recette yi xam nga loolu loolu moom yéen wul maanaa mhm. ñu jékki-jékki géométrie tey tey tey lépp jëm ci suuf si extrait de plan recensement immobile yi tout tout lépp lu mbirum ci mbirum kër ak tabax kër ak yëpp ak yëpp yëpp mm-hmm. ñoom ñoo koy def nga ne ñooñu participer wuñ ci formation recette ñooñu amuñu fa njëriñ maanaam amuñu fa liggéey ah mm-hmm. statisticiens yi ñoom ñooy def lépp lépp man département boobu laay nekk ay réunion yu garaaw lañ doon def cest à ay <laughs> réunion yu xaw a ay liggéey bu kii statistique recette suivi étriqué recette yan li ñooy dox yan li ñooy doxul quels sont mesure kii mesure yu bëri yu ñuy jël ay yu bëri ay ay kii impôt yu bari ay loi yu bëri parce que ci statisticien lay déparé mm-hmm. ñoom ñooy wax ne li mbir mi nga ne loolu mbir mi ni fu fii la jëm loolu ñoom xam nañ ko xam nañ ko bu baax mm-hmm. xam nañ ko bu baax man département boobu laa nekk d'ailleurs donc ñu ne ñooñu participer wuñu formation de recette xam nga loolu secrétaire bi nga xam ne moom mooy saisir yëpp yëpp yëpp notification mm-hmm. ay yu tout ça ak chauffeur bi ko yóbbu nga ne amuñu fa njëriñ xam ngeen ne loolu baaxul te loolu loolu dafa garaaw sax dafa garaaw loolu day tas administration xam nga lu tax nga président de la république mu ngi doon wax ne même soo soo jëlee cas informaticien yi statisticien yi ak géomètre yeeg topographie mm-hmm. par exemple nga ñëwaat sax agent d'assiette bi agent d'assiette bi nga xam ne moom mooy def recensement mm-hmm. agent d'assiette moom mooy dugg ci géeri def recensement parce tourner PPA tournée lu ñu tuddee PPA agent d'achère bi yooyu suy dem mhm. di joxe ay notification parfois day ànd ak policier parce que dans l'histoire mos nañ leen <laughs> mos nañ leen woon euh, mën nañ ko cee dóor mhm. nga ne ko participer wul formation recette même soo xoolee système boobu après bi ma pare dinaa ñëwaat ci euh, waaw système boobu baaxut système boobu baaxut léegi ñu ñu euh, de la ñu ngi doon wax ne day encouragé formation filière scientifique mhm. mais géomètre yeeg ñooñu ak euh, kii informaticien et cetera ñooñu ay profil scientifique lañ am muy seetaan yeneen profil di leen di écraser loolu du yoon ba pare buñ ko defee bi mbir mi jàllee mhm. euh, biñ ko defee dara fekku leen ci ñu génne benn arrêté bi nga xam ne day verrouiller sax yeneen corps yooyu ma wax dañ fay liggéey ba jógee dafa am responsabilité par exemple am na benn ingénieur statisticien. Mhm. agent agent de bureau la fa dugge ba ba muy retraité agent de bureau la. amul promotion. a ah, benn promotion amu ko noonu la demee retraite ñoom xam nañ ko sax suñ ko déggee dinañ xam kan waw ensuite amul benn promotion te soo xoolee buñ fa joge ñu génne waaw donc buñ génnee instruction boobu pourtant am na ñi nga xam ne soo xoolee contrôleur des impôts. Mhm. ci dañ leen favoriser ci système boobu. Mhm. mais xamuñ ne daf leen di yàqal contrôleur des impôts ñemeetuñ jàng xam nga contrôleur des impôts hiérarchie bee la su demee jàngewaat ay diplôme man xam naa contrôleur yu bëri am ay diplôme mais ñemewuñu reclassé wu dem fonction publique dem hiérarchie A ndax suñ fa demaatee gars yi génne leen ci beneen panier bi naan leen nekkatu leen fiscaliste te am na def nañ ko aussi benn waay mhm. donc loolu kenn xamul musiba boobu mais ba léegi gars yi comme dañoo ay lobby ñoo leen di jàppale te finalement buñ ñëwee gis ne d' ñoom seen analyse nee nañ daal yeneen gars yi nangu nañ loolu mais man maa bañ quoi man maa leen di sonal donc suñ ma affecté rek problème dootu fa amati ndax ñeneen ñi nangu nañ ko alors que c' pas vrai. justement am na ñu ne sa affectation bi moo waral coow lu bëri no ci lu ci lu indi ci lu euh, waaw lu indi coow bi la mais du moom rek coow bi kay yàgg na foofu. Mhm. coow bi coow bi yàgg na de. coow bi yàgg na mais c'est-à-dire dañu yaakaaroon ne xam nga dañu doon dañuy doon def ay affaire muy jàll. Mhm. les gens n'étaient pas combatifs. d'accord c'est-à-dire c'est-à-dire maanaam dañuy dañuy dañuy menaces yi seen menaces yi moo amoon doole ba léegi nag ba ba presque ñu bëri duñ ñamee wax mais léegi nag bon gars yi aussi fu mu nekk nii bu ñu tolloo personnel bi bu ñu tolloo ci situation bi nga xam ne c'est une situation de vie ou de mort seen existence lañ menacé puisque xam nañ suñu décapité syndicat bi ñoom suñu moytuwul leneen lay gars yi di def booba a gars yi commencé jëngu fu mu nekk nii ñi nga xam ne daawuñu woon wax dara ñoom ñoo jóg féete eh, nekk ci kanam moo tax coow bi bëri voilà. ngeen ah, ah. ngeen dooroon semaine u 12 septembre euh, coow euh, doon yëglu euh, mu mel ni dafa am ay waxtaan yu ci yu ci tegu lu xew. ndax mujjee ngeen waxtaan ak autorité yi wala seen biir ngeen waxtaan euh, lu waral ñu déggaat leen non euh, suñu su suñu waxtaanoon ak autorité yi du ngeen ñu dégg hmm. suñu woon naa leen kaay la ñu toog waxtaan du ngeen ñu dégg kon ñoom dañoo pataaral ci mbir mi faalewuñu leen benn yoon déedéet dañoo ne teg noppi faalewuñu ba pare di verser menace ngi commencé même menacer personnel waaw ñiy grève ñëpp ñu ngi leen di menacer waaw ku fi kii ñu dàqale ñoom daal seen seen benn arme la am ku fi de ku fi wax daal ñu génne la fi soo demee feneen doo am dara jeex donc dafa mel ni si ñoom seen entendement administration fiscale bi du admin du pour ñoom de. Hmm. du pour Sénégal de. Hmm. pour ñoom pour ñoom la. te ñoom ñoo fay buur ñoo fay bumi ñoo fay dogal. ñoo fay neex moo fay am. lu leen neex moo fay am te te loolu lu baaxul ci réew la. ngeen doon te fu mu nekk benn nit lañ yaakaar mooy président de la république benn moom lañ yaakaar te gëdd puisque def nañ lépp waaw ministre bi waxul ñeneen am na am na ay négociateur am ci biir inspecteur des impôts yi sax am na ay bonne volonté yu demoon pour désamorcer ba parce que xam nañ ne lii du yoon. Mm-hmm. xam am na si ñi nga xam ne ñoom am na si nga xam ne c'est des gens xam nañ lii du yoon. d'accord ñooñu dañoo dem faale wuñu waaw kon yéen jàpp ngeen ne njiitu réew mi rek ngeen mën a waxtaanal fu mu nekk nii. déedéet moo moo moo ñu waxtaanal baa mu baa mu joxe ay instruction ñu désamorcer mbokku ñu désamorcer crise bi. Mhm. mais ñeneen ñi waaw ñeneen ñi def nañ dara mënuñ mënuñ ci ñoom voilà loolu pour moom na joxe euh, na de toute façon soo gisee ñu tudd njiitu réew mi c'est parce que moo ñu li ñun ñi ñëpp di moo ñu yilif mooy réew mi moo ñu jiit. Euh, voilà mooy premier fonctionnaire mooy fonctionnaire bu mag bi. d' accord docteur Ba euh, nga ngeen affilié wu CNTS jamono ji euh, yéen a ngi yëglu seen préavis de grève yéen a ngi wax ni dina jeex fii léegi ay fan ñaata ci ban waxtu sax lay jeex. mu ngi jeex le octobre. bu ci paree lu ñuy xaar waaw lu ñuy xaar. ci seen xam soo xoolee doo doo doo yeewu rek nga nga commencé euh, def appliquer euh, def grève mbaa mm-hmm. marche mm-hmm. mbaa sit-in mm-hmm. da ngay déposer préavis te préavis yooyu soo xoolee a titre symbolique la préavis mooy mooy mer nga dangaa bëgg ñu toog waxtaan ak yow loolu mooy préavis buñ ko déposé nag ñale gise buñ ko noonu ñale doole bi lañ génne waaw affecté secrétaire général bi commencé menacé ñeneen ñi loolu loolu loolu moo loolu mooy seen réponse a pare ñun on a même def nañ sax entorse à certains principes yi nga xam ne man ak sama bopp sax dem naa keroog pour jéem a gis de bi mais mais mais mais recevoir ma. Mm-hmm. waaw waruma ko woon def mais pour rek bañ coow bi jóg voilà mm-hmm. donc c'est c'est musiba bu dëgg la donc c'est doole daal la ñoom doole bi lañ yaakaar daal yaakaar nañ ne doole mooy faj problème <laughs> ci coow yooyu le sax 2014 euh, euh, yéen a ngi doon yëkkati benn coow muy partage de fonds bi ngeen ne euh, amul tolloowul tey ndax li ngeen doon kaas 2014 ba 2021 am na ci coppite. benn coppite am ci xam nga lu buñ ko kaasee gars yi créé nañ ay commission yu bëri commission yi. Mm-hmm. boo gisee mu guddee noonu ay commission lañ créé. commission yi dindi déposé ay conclusion mm-hmm. ne léegi nañuy toog ñëpp woote ñu trouver un consensus. Mhm. ñu bañ a woote wuñ dara. Mhm. ñu ñëwaat ñëwaat far mu am changement. ministre bi dem ñu indi beneen ministre ak beneen DG. Mhm. ñu ne kooku su ñëwee duñu ko du kooku du ñëw jël service rek ñu commencé indi coow nañ ko bu liggéey parce que bay nañ ko ñaari at mu liggéey. comprendre nga li ma la ñëwee. mais ñu ne léegi période de grâce bi jeex na ñu ñu ñu remettre ñu génne question de teg ko ci kaw table bi mm-hmm. buñ ko génnee teg ko ci kaw table bi mu mu mu mu mu mer mu sanctionné mu mu génne sanction mu génne bato waaw la daal d'accord euh, tey jii pour génn ci seen mot d'ordre bi mag ñu ngi koy waxtaanee sànq euh, ci li jëm ci euh, recettes yi dañuy dégg exonération dañuy dégg amnistie fiscale yi ni mel ndax dafay am lu mu gàllankoor ci recettes yi waaw waaw waaw waaw bon loolu xam naa beneen yoon lañ ci gën a waxtaan hmm. mais lu ma ci gën a mën a wax tuuti rek hmm. exonération loolu loolu lañ tuddee dépense fiscale maanaam euh, waaw waaw c'est des ay ay li ci bëri ay régime dérogatoire moo koy moo koy def maanaam ci ci yooyu la jógee wante mhm. soo xoolee dépense fiscale yooyu ñuy wax yi ci bëri ay dépense sociale la mhm. ay pour jàppale ñi nga xam ne ay néew di doole lañ généralement loolu la daal mhm. waaw docteur tey ji agent yi da ngeen di mobiliser euh, benn somme annuellement Euh, bi nga ñuy booleeg douane pour hmm. maanaam xayma ko muy recette annuelle. waaw soo xoolee ñun presque soixante dix ba quatre vingt pour cent recette budgétaire yi ñun ñoo koy indi. d'accord waaw loolu depuis bu ñu transféré impo direct yi bu ñu ko jëlee eh, déjà CPP mooy direction générale de la comptabilité publique et du trésor indi ko impôt et domaine. Uh-huh. daanaka loolu boo booba la nga la ñu la ñu suñu recette yi trop trop trop. ok soixante dix pour cent donc recette budgétaire yi ñoo koy indi daanaka. donc ñun ñoo koy indi waaw. Mhm. booba loolu loolu daal donc moo tax euh, administration bu mel noonu. Mhm. da nga koy euh, warul warul am yëngatu. Mhm. war soo waroo waroo nangu yëngatu dafa am soo su nekkee su nekkee njëg nga. parce que baaxut bon parce que soo xoolee ñun euh, recette budgétaire yi ñu koy utiliser mooy. dépense xam nga recette bi dañ leen di dépenser recette bi ñoom ñooy alimenter budget mm-hmm. soo xoolee dépense courante maanaam salaire yooyu mm-hmm. dépense en capital par exemple réactif yi ñuy jënd ci hôpitaux yi et mm-hmm. service de la dette mooy ramb donc yooyu ci lañ koy jëlee donc loolu loolu loolu secteur buy def loolu kenn du fooy <laughs> kenn waru ko xoxatal <laughs> war voilà kenn daal kenn warul nangu mu am instabilité instabilité am foofu. instabilité am foofu ndax réew mi day yëngatu. waaw day day yëngatu loolu donc ñi fa nekk foofu son euh, njiitu réew bi warul nangu ay ay ay ay ay ay xeex ay ay va t fa nekk. ay ay donc warul nangu daal ay remous am foofu. Hmm. mbaa yëngatu su fa amee dafa war utiliser ay prérogatives am yu prérogatives yi nga xam ne. moom la yore. Mhm. ndax moom mooy suñu kilifa moo ñuy lig ñun ñëpp. ñu ñu utiliser prérogative am pour pour pour ko ci lu ci lu gaaw. Mhm. waaw waaw ndax ñun ñooy kilifaam fu mu ne su waxee ñun ñëpp on va on va s'exécuter. d' accord voilà. docteur Alassane Ba ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf Elisabeth maa ngi leen di nuyu man maa leen di sant di leen gërëm